Mandiaye da ngaa war a dem jàngi nan la ñu communiquer nga doog def interview dem na DTV def interview lu ne mi ngi ma ko doon lu ne ñi ngi ma ko doon yàkk yàq DTV naan aadama mooy jaxase ay famille aadama moo du dugg ci yoon nekk man lan mooy sama yoon ci seen famille. lan mooy sama yoon bu fekkee famille ngeen doo leen waxtaan seen biir dama ne la boo amee loo war a wax waali sekk nga wax ko ko nga woo ko téléphone wala nga dem fa loolu laa la wax mais pas ci ay plateau di weerante kee def na ko nga def ko loolu du rafet. ku leen ciy encouragé mu ngi leen di nax du lu rafet ay DJ Yves nag bu ma ñëwee ci ñoom dinañ xam ne lépp dëgg la Pawlish Mbaye duma ko tontu moom bës la bëgg ndax jamono jii ku ne xam ne ne dafa fay bës la bëgg moo tax muy langaamu ci man man ku langaamul ci man do am ñom télé yi lan yakkar pour def seen promo man faalewu ma télé télé yi dan ma leen mo non non je dox ñewuma billahi wallahi wa taalahi ma wax na nga wo sa yaay sa yaay dila wo yaay wo ma ci télé bi tag ma wax ma ne nag ma bëgg nangam nangam sa yaay li yor ci mom 40 audio la barki serigne babacar si ma ndjay sek bis bo ma merloowee ma taal sénégal billahi sidi diop mi wote won dila interpréter sax sa yaay lim ko wax ci audio bi billahi bu ko déggé dé ma ñàkk sama nday 40 audio laa yor yor naa ba yor sa yaay lo non loolu sax duma duma ko wax rus naa ko wax barki Serigne Babacar si lu ko waat bu fekkee damay fen xoolal sama bakkan bii yàlla bu ma ko dese tey ma njaay barki Serigne Babacar si boo ma merloowee ñi may commentaire li ma gën a bañ mooy ku may jox di ma commentaire di génn di wax ñu may commentaire nangam woonan ma nag bambali woona ma ma bàyyi ma sedd ak ñeneen ak ñeneen mënoo communication ma njaay sekk génn nga fi barki démb nga xas sa best family yaa ngi dégg ñu ne déeta waay nga xas fi Baye Sall keroog démb yaa ngi xas laa Ballago sekk te tey foo mujje labelu suba teel xoolaatal sa entourage nga xool sa bopp barki Serigne baaba kersi ak ma suul sama ndey Sénégal yéen a ngi may déglu li ma yor bis bu ma ko génnee réew mi tàkk